abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, su ne ngeen di ay internet yi safoo di seetaan FTTV Sénégal dalee na ci xibaar ñew ci dogal bi nga xam ne préfet bu Dakarou dal dina koy jël mom ginnaw bi nga xamee ne coalition Yewwi Askan Wi daal dinañuy annoncer né dañuy amal ab manifestation wala sax marche pacifique ginnaw loolu la nak mom préfet bu Dakarou daal dinay génn gàntal mbir mu ni mel ba tax na daal jamono ji ñuy àddu moom préfet bu ndakaaru daal dinay gàntal manifestation yaa nga xam ne nag nar nañu ko amal le 29 mars bi ñu dëtmal mu di suba ba tax na daal waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom la ñu bëgg du lu dul def seen manifestation comme nañu ko bëggee donte ne sax préfet daal dinay gàntal mbir muy mel mu mel na nag ñoom seen communiqué ba ñu génne mu mel ne dañu cee wax ne dañuy yëgal ki nga xam ne nag moom moo di préfet bu ndakaaru di wax ne nag képp koo xam ne na projet bi nga xam ne nag daal dinañu koy tekk ngir Sénégal ñu ngi lay woo euh, ca rond ba nga xam ne nag ma nga am ma nga nekkee foofee euh, ca euh, wetu université Cheikh Anta Diop di sàkku ci teewaayu askanu Sénégal bi nga xam ne nag gëm nañu projet bi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi daal dinañu koy tekk ngir génne bépp dictateur boo xam ne nag kii di Macky Sall daal dina koy def fii ci réewum Sénégal ñoom nag lañu bëgg du leen lu dul. def seen manifestation way itam comme nañu ko bëggee comme nañu ko waxé won askanu Sénégal bu 15 heures jotee ca rond point ba nga xamné ne mo nekké fofé ci université Cheikh Anta Diop képp koo xam ne patriote nga tëggam li nga xamné mom modi projet bi ñi ngi lay wo le 29 mars inshallah jox leen dig daje ak ci beneen xibar jajeufal nañu leen ci ànd beeg FTTV Sénégal.